ak daal mboolem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim yëpp góor ak jigéen bàyyiwuñ kenn ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bës bu tedd bile. waaye duñ fàtte mukk al imam Seydi Cheikh Tijani mu Seydi Ali Cissé mi nga xam ne mooy imaamu jumaa ji di liggéey liggéey bu rafet ci réew mi ak ci bitim réew ñu koy ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gi yaram. waaye di nuyu an naatiqu rasmi ki nga xam ne mooy porte parole kër gi di sayidi mouhamadul maahi sayidi ali siise moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér di nuyu mbooleem muqaddam yi di nuyu mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk ci adduna bi ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye itam mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñ kenn euh, di nuyu Cherif Sidi Abdul Muttalib at mi nga xam ne moo fi di deretu Cheikh na Ahmed at Tijaani radiallahu taala anhu waaye itam di nuyu euh, mboolem njabootu Maulana Cheikh Omarul Fouti radiallahu anhu Cerno Bachiru ak Cerno Madani di nuyu itam maana euh, Sidi Aboubacar si bu Sidi El Hadj Mouhamadul bu Sidi El Hadj Mhm. ca Tiwaawoon ak mbooleem al usra al malikiya ñu ngi leen di nuyu di nuyu sun baay Cheikh Tidiane Seck bu cene ba machayixu Fuuta yi waa kër Cerno Hamme baaba waa Madina Gunaas ñoom ñëpp danañ leen nuyu fii ci ëtti Maulana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahim Niass ngir moo bokk ak ñoom diine ji ñoom itam at tariqatu tijaniya waaye ñi nga ne sax dañu bokk ak ñoom at tasawuful islaami as sunni duñ ci bàyyi kenn muy waa cheikh Abdul Qadir al Jeylaani waa kër cheikh Saadu Abihi waa kër maam Bukunta Njaasaan ak waa kër cheikhul Xadim cheikh Ahmadou Bamba waa kër maam Limaamu Laay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ba may nuyu it ci këri tariqa bi fàttewuma cheikh Mouhamadul Mansour Sall xalifa Serigne Abbas Sall ci Louga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu mhm. Serigne Pape Anne ma nuyu yow itam di la ziyaara di la ndokkeel sama rakk ju baax nga sama wëllëre nga bu yàgg du tey ma lay ñaanal yàlla liggéey bu rafet bi ngay liggéey ci diine ji ak ci tariqa bi ak di soppuloo nit ñi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na la ci yàlla dolli kattan léegi rek yaa ngi may nettali gént gi nga gént gis ko Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahim Niass fii ci pee bu sell bi te dara mayu la loolu dul rek sa mbëggeel gi nga bëgg yonent bi kon loolu yàlla ko yàlla yokk fa tabaarakallah di nuyu nag kër gi euh, xaaj Youssou Ndour maa ngi koy ñaanal yàlla tawfiq ak najaax waaye di nuyu njiitu réew mi président Macky Sall ak mboolem membre gouvernement am di nuyu mbooleem daal waa réew mi yëpp incha allahu tabaraka wa taala jërëjëf euh, Cheikh Aboubacar Ba Tijani mbokk mi noonu am nañu mbégte ñu ngi fii ci dëkku leer bi ñu ngi fii ci dëkku Cheikh al Islam radiallahu anhu nga xam gàmm nanu waaye bàyyi bëggam nga yunantu bi alayhi salatu wasalaam day gàmm ba suba mu julli ba noppi continuer di gàmmaat ba 10 heures jot ngir cofeelam ci yonent bi alayhi salatu wasalaam bu gàmmoo ba noppi moom Cheikh al daawul doyal ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi kenn mënu koo natt te la naan gàmmuwaat bu bés ba nga xam ni mooy bésu suba bi nga xam ni ci la ñu reyal gàtt yonent bi alayhi salaatu wasalaam cheikh al islam moom itam noonu la daan toogee fii ni mu koy defee bisu gàmm moom itam defaat gàmmuwaat googule loola waral télévision Futurs Médias ñëwaat jël war leen ko wan en direct ci gàmmuwaat gi tey jii nag nu war a waxtaanee Baay radiallahu anhu naka la daan gàmmoo moom cheikh al islam buñ ci jugee daañu jël benn xasida boo xam ni Baay wax na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, cheikh Aboubacar Ba Tijani war ko bégalee téléspectateurs yi safoo télévision Futur Média ak njabootu seexal islam gépp waaye ak diini ji ndax yaakaar naa yonent bi moom euh, bëggam ko kenn xamul nu mu toll waaye seexal islam moom la mu waxoon bu ñu njëkkante ci bëggante yonent bi alayhi salatu wasalaam kenn du ma séen kon Baye Ngoog Cheikh Bakar Atijani ma bëgg tey nu waxtaanee première question bi mooy Baye radiallahu anhu ci pays bu tedd bii bu bés bi daan teru ci pays bu tedd bii bu daan toog ndongo yi wër ko taalibe yi wër ko soppeem yi wër ko naka la daan gàmmoo ba fajar jot mu julli di continuer moom al Islam radiallahu euh, jërëjëf oustaz laaj nga laaj bu am solo Mawlana Cheikhul Islam Alhaaji Ibrahim Niass dafa nekk euh, benn kàngam bu mag ci kàngami lislaam ba mu nekk marja la yaaram ba ne woon isa qaalat xisaami fa saddiquuha fa inna alqawla ma qaalat xisaami loolu dafa dal mawlaana cheikh al islaam alxaaji ibrahim ñes ci lislaam lépp lu wax ci lislaam rek xamal ne loolu noonu la wér na lépp lu def ci lislaamit xamal ne jëf jooju jëf ju wér la ngir wax na ne moom ñaari sëriñ la am benn sëriñ bi moo di alxuraan ak sunna te nee na xamul ku ku ku gën a ku ku gën dégg ñaar yooyu muy sëriñ zahiram mu ne am na sëriñi baatin mooy mawlaana cheikh ahmed tijaani radiallahu taala mu ne te kooku nag du tàqalikoo ak moom ci benn gendeeku fu mu toll rek mu ngi ànd ak cheikh ahmed tijaan radiallahu taala mu teg ci nag ne kon naka la lu ñaaw mbaa lu bon di jóge ci alquran ak sunna mbaa mu jóge ci cheikh ahmed tidiane radiallahu anhu kon bàyyi jëfam jar naa xam waxam jar xam ndax dana jëriñ jullit ñëpp mhm. yàlla dogal na moom Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu mu ngi wax ci benn qasidaam wa xubbi saxiixun thaabitun mutawaatirun xafawtu abi qaasaahu wa huwa kabiru mhm. mu ne sama mbëggeel ci yonent yàlla muhammad lu wér la mhm. sama mbëggeel ci yonent yàlla muhammad siiw na ba àdduna yëpp xam nañu ne man yonentu yàlla muhammad rek laa bëgg mu ne waaye dama roy sama baay alxaaji abdullah mm-hmm. ndax moom dafa jànku xafawtu abi dama roy sama baay mawlaana alxaaji abdullahi ñas waa xaasaahu ndax jànkoo wante naag mbëggeel gu mu sopp yonentu yàlla muhammad wa huwa kabiru te sama baay kilifa gu mag la ci lislaam mm-hmm. loolu nag moo waral euh, baayam maam alxaaji abdullah baay radiallahu ci bëgg yonent bi ak ci gàmmu daf ko fekk ci kër gi ndax baayam maam alxaaji abdullah dafa bëggoon yonent bi ba juri këram yi nga xam ne mooy fasam yeeg xaram yeeg daaba yi dafa leen daan tuddee daaba yi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon fas yonent bi niñ tuddoon mu jël tur yooyu tudde ko ay fasam ay sak boog ah, ay ay sak boog ay lisaas ak yooyu noonu ah, mu jël ah. jël fas yooyu uh-huh. di ko tuddee fasam yi moom maam alaaji abdallah est-ce waaye nag fii ci saalum uh-huh. gàmm yi fi daan am gàmmu kaang lañ ko daan tuddee gàmmu kaang gàmmu kaang mooy ñi mokkal alquran bu guddi gàmmu jotee uh-huh. dañuy seet ndongo daara yi nga xam ne mokkal nañu alquran ñuy jamoo kaamil bi bu ko defee ñu ne diw yaay tari isib sangam ba isib sangam diw yaay tari isib sàngam ba isib sàngam juróom benn fukki isib yi noonu lañ koy séddoo di tari di wër dëkk bi di tari alquran balaa fajar balaa fajar kaamil bi jeex bu ko defee buñ jullee fajar dëkk bi yëpp daje indi sarax yi ñu daal di def mu noonu lañ daan gàmmoo fii ci tundu Saalum maam alaaji abdoulaye radiallahu anhu bi mu demee Faas mm. mu daal di xool naka la waa Zawiya Cheikh na Ahmed Tidiane di gàmmoo ci jamono Cheikh Ahmed Tidiane yi bam ko gisee mu gis ne ñoom guddi gàmmu dañuy daje jàng hamziyatul busiri muy kayfa tarqa buñ ko jàngee bam jeex waaye ci biir njàng mi nag dañuy jàng hamziya ba yàgg ñu dagg ko am ku jël di waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa di ko waxtaane ba yàgg mu daal ñu jëlaat hamziya bi continuer di tagg yonent bi kayfa tarxa noonu lañ koy fanaane mhm. ba bët set ak salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lil wa shifaa'u noonu nag la maam abdallah doon dundee maanaa gàmmu ci ne ko faas di defee buñ jullee fajar dal di jàng burda bi ba mu jeex dal di jàng kaamilu alquran dal di tasaaroo mhm. Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahim Niass laata muy sanc dëkkam bu tedd bii di Madina mhm. moom moo daan jàng hamziya bi ca lew na magam xalifatul xaaji Muhammad di ko firi noonu la daan def moomitam muy gàmmuwaatal soppe yeeg taalibe yi saay ci lew na yii saay ca koosi mu di ko def ba nag bi ko yàlla mayee dëkkam bu tedd bii di Madina mu daldi di nag jël al aqlu rabbaani bi ko yàlla jox mu jël qasida bi nga xam ne mooy tahni atu rabii sayduna baddi ibnu sidina moo ko taalif baddi ibnu sidina mooy xalifab cheikh mohamadul xaafaz al alawi ca gànnaar cheikh mohamadul xaafaz radiallahu anhu moo njëkk a jël tariqa tijaaniya ci cheikh ahmad tidiane ci réewi Mauritanie cheikh mahamadul haafaz moo jox seydi mawlud fall seydi mawlud moomu moo jox seydi abdul karim Diallo seydi abdul karim moo may wird mawlaana cheikh umarul fuuti te xam nga ne cheikh umar moo jox maam moo jox Cerno Aliyu Caam mu jox maam Serigne Kellel mii ni jaayi maam alaaji Abdoulaye bokk ak yaayam dee ak baay kooku jox alaaji Abdullah Cheikh Omar it moo jox maam Alfa Mayoro Wele mu jox Sidil Hadj Malick mi mu bokk ak yaayam ba tey ndey ak baay waaye Abdul Karim Diallo moomu moo joxoon tariqa bi ku ñuy wax Mouhamad Xamme Ba ca Wuro Mahdi ca Fuuta Mouhamad moomu moo jox doomam ji wax Tahiru mu jox Tahiru Ba mu jox maam amari ngoone ndaak sekk ca ba waaye nag cheikhu amadou bu samba sadio moom moo lijaasaal maam amari ngoone nga gis ne kon cheikh mahamadul hafaz mii sax-saxi yoon wi la moom nag xalifaam ba di bëddi moo taalifoon xasida bi ñuy wax tahani atu rabii mhm. baddi cheikh pape an am na may gu réy dafa am bés di bind ci cheikh ahmad tidiane yaa raqiban ala alibaadi jamian wa muxiitan bi jumlati alakwaani balligan cheikhana salaama muhibbin thaabiti alwajji daaimi alhayamaani aaqani anhu waalidaaya wa dofun wa fuaadi yahimmu bitayaraani naka la wax abyaat yooyu rek yow mi fuglu jaam ñëpp yow mi peek mbooleem li nekk jottalil ma sunu sëriñ Maulana Cheikh Ahmed Tidiane nuyoo soppe boo xam ne njàqa rek cofeelam dafa sax fu mu toll mu ngi màndi ci bëgg yàlla dara gàllankooru ma nag pour ma dem ziyaara ji Sidi Ahmed Tidiane lu dul sama ñaari wayjur yi ay mag lañ te itam samay moyen bariwul waaye sama xol mu ngi bëgg a naaw fi mu waxee naaw rek këyit wi mu yoroon dal di ne fër naaw ñu wër ko ci gannaaw xayma bi ba sonn gisuñu këyit wi ba yàgg këyit wi dellusiwaat ñu gis ci suuf qabil naa laka min hunaka nangul nañ la ca foofa nga nekk ndekete booba maulaana cheikh ahmad tijaani chérif radiallahu moo soppiku rek def tasaruf def ngelaw dal di jël këyit wa yóbbu ko faas bindaat ca lam ca bind delloosilaat ko ko mooy baddi ibnu sidina hmm. moo liggéey tahni atu rabii muy xasida boo xam ne la ne ciy njëriñ la ne ci ay yiw la ca nekk ci ay mbaax kenn xamut nu mu toll mag ñi dañ ko daan denc baddi saay su weeru gàmm teru woon saay su wazifa ba pare daf ko daan jàng gannaaw wazifa ci layaalil mawlid ba keroog guddi gàmm gi jot waaye magi tariqa bi rek ñoo ko xamoon mu nekkoon siru ngir xasida bi dafa làmboo ay tagg yoo xam ne sahaaba yonent bi ñoo ko tagg yonent bi ni ki seydina abbas ibnu abdul muttalib moo wax min qabliha tibta ñaari bayt yi ci topp muy ibnul xatib saahibul wizaratayni moo ko wax nga xam ne bi mu waxee ñaari bayt yooyu yaa mustafan min qabli nashati aadamin walkawnu lam tuftax lahu axlaaqu ayarumu maxluqun sanaaka ma asna ala axlaaqika alxalaaqu mhm. xadra yàlla bi nee na ko sa ñaari bayt yi labal na mboolem xeeti tagg yu ñu tagg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko jàng rek mel nga ni tagg nga yonentu bi ci mboolem xeeti tagginam yi mhm. bàyyi jël maanaam baddi jël loolu dugal ko ci biir xasida bi mm-hmm. niki noonu dégg nga tax di bihi naaqatul admaa'u euh, yaani euh, agarru alayhi bi nubuwati loolu Hassan ibnu Sabit moo ko wax tax di bihi naaqatu Abdullah ibn Rawahata moo ko wax wa abyadu yustasqal gamaamu loolu euh, Abu Talib bàyyi Seydina Ali moo ko wax inna rasula la sayfun Kaab ibnu Zuhair moo ko wax nga gis ne xasaayi di sahaaba yi ridwanullahi alayhim yooyu yëpp la jël daal di koy boole ci bopp qasida bi def ci ay salaatu ala nabi salaatu nuuril qiyaama abbas abbas yaa Mustafa min xam abbas waaw euh, ah, déet yaa Mustafa kële moo ko def ibnu xatib ibnu xatib mais abbas moom moo def euh, min qabliha tibta moom laa njëkk a wax waaw moo ko def min qabliha tibta loolu yëpp mu daje ci biir qasida bi nag mu daal di dajale guddik yonentu bi nag sallallahu alayhi wa gis nga am na ci bayt man za lazi ma saa qat wa man lahu lxusna faqat mm-hmm. kooku ibnu farid moo toog ci baytu xalwateem rek haatif daal di ilham ko mu ne man za ma saa qat wa man lahu lxusna faqat haatif ne ko muhammadul haadi alladi alayhi jibrilu mooy mooy luy wax ak yow mooy kàddu goo xam ne da nga koy dégg te doo ko gis a comprendre baytam boobu ñu ne ko képp ku ko jàng yàlla jéggal la allahu akbar abul mawahib achadali moo wax muhammadum basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna al hajar mais mais mais mais mais mais Cheikh euh, Aboubacar bayit boobu bëgg naa nga wax ko benn par benn téléspectateurs yi dëgg tam ñoom ànd ci ndax loo xam ne ku ko wax yàlla jéggal la dëgg bëgg naa nag àdduna bi yëpp yàlla jéggal muhammadum basharun bi sax moom bi abul mawahib xaatif wax naak moom ne ko sa bayti bi mbooloo muñ ko jàng ñetti yoon yàlla jéggal na leen seen bàkkaar yu jëkk ak yu mujj mais mais wax ko wax ko muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna alxajar mhm. muhammadun basharun laa kal bashar mhm. bal huwa kal yaquuti bayna alxajar muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaquuti bayna alxajar alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam rafet nañ njortu ci loolu ngir ne yonentu yàlla muhammad yàlla daf ko yónni mu nekk rahmatan lil alamin mm-hmm. yërmande mbindee fii la texe la euh, dégg nga mbaax la ngërëmal yàlla la njëggalul yàlla la lépp yonent bi daal ay xéewal la sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg na lu ne ku ne wax na ko ba ci Abu Talib mi nga xam ni mm-hmm. euh, falawlal mala euh, malaamatul allah aw xadaar musabatan mm-hmm. la wajadtani samhan bi daaka mubina kero ba mu génnaat dina kon lu ne dégg na ko walaqad alimtu bi anna diina muhammadin min xayri adyaani bariyati diina loolu lu wér la Abu Talib euh, ab xam nga dama bañ ñu topp commentaire yooyu ba duñ dugg ci xasida baay bi moo tax dama bëgg direct rek moo tax ma bëgg baay doon gàmm avant xasida waaw euh, waaye xasida euh, ab yooyu yëpp benn bu ci ne dafa am taarix benn bu ci nekk dafa am taarix te benn bu ci nekk boo delloo ci kutubu siyar yi da fekk ci slaayam nekkul rek loo xam ne dañ koo sos rek wax ko Abu Talib waa Quraysh ñoo amoon bekkoor bu méttee métti bekkoor bi nag bi mu amee ñu song ko ne yow la ñu bëgg nga baaw naanal ñu booba yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toll ci diggante juróom-ñaari at jàpp juróom-ñetti mu daal di jàpp ci loxo yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ànd moom bi mu ñëwee ba ci kaaba gi ci fi ñuy wax misaabu rahma mu daal di jël yonentu yàlla muhammad daal di koy sësale ci kaaba gi daal di nag ñaan yàlla yonentu bi ñaan naka la yonentu yëkkati loxoom ci asamaan laata mu koy wàcce rek asamaan si ne satatat satatat sotti ba dégg nga dex yi daal di taa tool yi <coughs> daal di naat boobu yàlla yónneegu ko mu ngi am juróom-ñaari at jàpp juróom-ñetti at moo tax nag Abu Talib ci xasidaam bu gudd boobu mas mat na juróom-ñetti fukki bayit boo demee ci siiratu ibnu hisham da nga ko fa fekk eh, ca la koy waxe naan wa abyadu yustasqa algamaamu bi wajhihi simaalul yataama ismatun lil aramili mm-hmm. ne sama doom jii di yonentu yàlla muhammad wa abyadu mooy sang bu weex tàll boo xam ne yustasqa def na baaw naan def na tawloo alxamaamu niir ya bi wajihi ci barke xarkanamam bi xarkanam bu tedd bii fu ñu ñaane yàlla ne yow yàlla ci barke xarkanamu yonentu yàlla muhammad tawalal ñu rek yàlla dal di wàcc asamaan si mu dal di taw simaalul yataama mu ne mooy ndëgër laayu jirim ñi waaye ismatun lil aramili mooy kaaraangay dégg jigéen ñi nga xam ne dañoo néew doole amuñu ku leen yor ñooñu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo leen di téye moo leen di taxawu sallallahu alayhi wa sallam ala kulli xaal euh, abyaat yu bëree nga fa ba ci li ñuy wax dibaajatul burda mu ngi ci biir euh, mawlid boobu nga gis ne rek Mawlana Cheikh Ibrahim lim fàggul taalib yi ak lim fàggul jullit ñi ci mawlid xasida boobu rek fu ñu ko jàngee xeeti yiw yooyu yëpp ak xeeti ngëneel yooyu yëpp ak tagg yu rëy yooyu nga xam ne ñu ngi koy tagg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ki màng na ko moo tax mu wax ci benn xasidaam salli ala man man xadar mawlidahu mahma dukir yakunu misla man sabar fi yowmi badril mursali mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan man alaaji ibrahima ñas radiallahu anhu na nga julli <coughs> ci kooku nga xam ne képp ku teewe fu ñuy jànge mawlidam bi te tahniatu rabii bokk ci mawlid yi fépp képp ku ko teewe rek yàlla dana la bindal ci ab yool bu day ku teewe woon xare badar ta muñ ca te xare badar yonent wax na ne inna allaha italaa ala ahli badrin wa qaala lahum imalu ma shitum faqad gafartu lakum yàlla yër na képp ku teewe xare badar ne ko defal lu neex man yàlla jéggal naa la kon Baye moo wax ne képp ku teewe gàmm boo fa jógee yàlla jéggal na la sa bàkkaar yu jëkk ak sa bàkkaar yu mujj loolu nekk lu tumurank ci àq yonentu yàlla muhammad bu dee abu lahab mi nga xam ne dundam yëpp mu ngi ko jeexal ci lor yonentu yàlla muhammad mm-hmm. yàlla yaxal ci alquran sa yasla naaran daata lahab teewut dikk na ci saxiixil buxaari ne guddig altine ak bésu altine bu jot dana oyofal ci moom am mbugal la tax mooy rek kerab bi yonent bi juddoo fekk abdoulaye mi doonoon dégg doomi baayam moom abu lahab faatu na ci fukki atam ak juróom-ñett di bàyyi yonentu bi bàyyi soxnaam mu toll ci ñaari weer waaye soxna sa am doom doom ja di góor mbégte mi mbég ci doom ju góor ji xamul sax doom ju góor ji lan la làmboo waaye mbégte mi rek tax jaamam ba ñu wax suway batu ba mu ñëwee ne ko sa soxna su mbokk ma kat <clears throat> mucc na am na doom ju góor mu bég ne ko kon yow mi ma ko wax goreel naa la mm-hmm. mbégte moomu mu bégoon ci juddug yonent bi sallallahu alayhi moo tax saay su bésu altine jotatee wala guddi altine bëccëg ba ñu oyofal ci moom mbugal bu dee nag abu lahab noonu yàlla bi moo am ngëneel lu tol noonu ci barkeb juddug yenentu yàlla muhammad kon bépp ngëneel bu ñu wax ne ab jullit dana ko am ci guddi juddug yenentu bi rek loola wares na koo gëm am na itam yeneen ay tegtal yu ëpp yooyu waaye waxtu moo ñu dut may pour ñu développer ko léegi nag cheikh al uh-huh. nga gis ne kon moom gàmmu waaw weer wi yëpp gàmmu la ci moom weer yëpp gàmmu la ci moom ndax bu weer wi teroo rek mu ngay jàng mawlid bi comme na ko ba di daan defee nga gis ci jamono bi Maulana Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim di ko liggéey di ko def comme na ko baayam daan defe ci jumaa ji ak taalibe yi waaye sax léegi law na ba muqaddam yu bari ci jotaay yu fasantikoo ci réew meek bitim réew ñoom ñëpp bu guddi gàmmu jotee yaa ngi dégg tahni atu rabii ahlan bi shahril mawlidi ñu di ko def ba fukki guddi yaa ak ñaar yëpp guddi gu jot duñ tëbal benn guddi danañ ko jàng ba guddi gàmmu ñu jàngaat ko Mawlana Cheikh Ibrahim noonu la daan waajale mawlid gis nga xasida yim ci bind bëri na hani an li ibrahima dégg nga laqad uh, uh, talaa al hilaalu hilaalu taaha dégg nga fu weeru gàmmu jote rek dana taalif benn xasida bu bees ci yonentu yàlla muhammad di ci ndokkeel yonent bi di ci ndokkeel weeru gàmmu di ci ndokkeel boppam waaye bu gàmm jotee nag ca guddi ga mag ñi fekke wax nañ ne 10 heures ci guddi la bàyyi daan génn bu génnee ba toog doo gis mukk mu geestu doo gis mu jóg eesalaan njàpp du dagg jotaay bi moom mooy jàngal boppam tax ni atul rabii bi ba mu jeex bu ko jàngee ba mu jeex nag <clears throat> mag ñi nga xam ne ñoo ko waroon ñu mel ni Baye Omar Fati jàlloo Baye Baba Thiam ñoom maam Demba Thiam Baba Ndiaye maam dem Demba Thiam ba ci Haaj Babacar Thiam mu yàggut mii ñoom ñooy jël nag di jàng hamziya bi salli ya rabbana Baye jël ko di ko toj di ko firi di ko firi di ko firi bu jàngee bu jàngee tuuti taxaw julli ci yonent bi jàng salaatul fatihi moom Maulana Cheikh Ibrahim muy xuus nag di waxtaane yonentu yàlla Muhammad di waxtaane siiraam dë xam hamziya lay firi waaye dana wax loo xam ne doo ko fekk sax ci xam hamziya dana wax loo xam ne doo ko fekk ci charay hamziya yi daanaka bépp téere buñ bind ci siira yonentu yàlla Muhammad mooy wax ci mbaaxu yonentu bi da nga dégg Maulana Cheikh Ibrahim dana xuus ca téere yooya boo ko dee déglu day mel ni yaa ngi jàkkaarloog almawaahibu laduniya bu Qustalaani wala yaa ngi jàkkaarloog sira alxalabiya wala yaa ngi jàkkaarloog siratu ibnu Hisham wala yaa ngi jàkkaarloog subulu huda wa nga xam ne fukki xaaj la ak ñeent walla yaa ngi jàkkaarloog shifa bu qaadi iyaad ak charam ya mu di ca dugg dugg ci téere sunan yi ak téere xadis yi dalailu nubuwa bu abi naim <coughs> ak dalailu nubuwa bu bayhaqi bàyyi di xuus ci yonentu yàlla muhammad ci zaahiram ci baatinam ci baatinu baatinam di wax ci yonent bi di wax ci yonent bi loo xam ne kenn mësu koo dégg noonu la koy doxale bu yàggee mu daal di jël benn peru salaatul fatihi julli ci yonent bi zikarkat yi jëlaat yëkkatiwaat salli ya rabbana nekk ci hamziya noonu lañ koy jamoo ak moom ba fajar gi xar bu fajar gi xaree ñu noddu mbooloo mi yëpp jóg julli doo gis kenn ku jàpp ku dem nag jàppiwaat wala ku tiim ñëpp li ñu toog ci guddi gi yëpp kenn ku ne yaa ngi ànd ak njàpp yaa ngi yor sa kurus di jàng salaatul faati ñenn ñi ñu ngi jël seen xol bi rek branché ko ci li Maulana Cheikh Ibrahim Niass di wax hatta ñi déggul olof seen ruuhu yi ñoom ñooy déglu léeg-léeg nga gis koo xam ne ab hawsa la wala naar déggul dara ci li sëriñ bi di wax waaye da ngay toog ba yàgg rek gis moom ci boppam mooy njëkk a xaa yuuxu wala mooy njëkk a daanu ngir ba muy wax wax ja ruuhu yi ñoo koy aw xol yi ñooy dégg waxam ji radiyallahu anhu xefam ak xipp yi nga xam ne moom lay xef di ko xool taalibe yi ci la leen di nandal ci la leen di tëbbu ñi dégg wolof ak ñi déggul olof yëpp mu ngi leen di tëbbu ca leer ya moom cheikh al islam alhaaji ibrahim Niass noonu la koy defee nag bu fajar gi xaree bañ julli ba sëlmal mu jogaat daal di jël burda bi imaamul busayri def mu daal di koy jàng commencé ko ci amin tazakkuri jiraanin ba ca jeexitalu burdu bi lépp mu daldi koy jàng ci taxawaay bu ñu nag abaana mawliduhu an tibi unsurihi mu daal di jóg taxaw bu jógee taxaw tant bi yëpp daal di jóg taxaw di ndokkeel juddug yonentu yàlla muhammad ak teewaayug yonentu yàlla muhammad bu ñu gàmmoo ba gàmm gi jeex mu daal di nag daal di jël kaamilu alquran bi tasaare ko daal di ubbi bopp alif lam mim zalikal kitab ñu daal di tasaare jukki mbooloo mi yëpp daal di jàng kaamil bi ba mu jeex buñ ko jàngee ba mu jeex nag mu daal di jóg tuubal nag jullit ñi nga xam ne nit ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci gàmm gi te di ay yéefar te fekk na jës bu na leen ci bëggeelug yonentu yàlla muhammad bañ bëgg lislaam dingire bii ñu toog kenn xamut ñaata junniy nit ñoo fi tuub dugg ci lislaam ci suba gàmm nga xam ne gàmm gi tas na ñu ngi waaj yeewi nit ñi muy tuubal nit ñi bu tuubalee nit ñi ba ñu egg mu daal di nag seet ñi bëgg tariqa tijaani ya bëgg ñaan werd ñoo ñit ñu boof ci kanamam mu wax leen chartay tariqa bi daal di leen may werd bu leen mayee werd nag dal di dénkaanewaat nag dénkaaneem bu mujj boo xam ne lépp day tegu ci alquran ak ci sunna si yonentu yàlla muhammad ñaax nit ñi ci bëgg lislaam ñaax nit ñi ci topp sunna si yonent bi ñaax nit ñi ci jàng alquran ñaax nit ñi ci yar seen njaboot jàngal leen eh, xam-xam jàngal leen métier fonk seen réew eh, yenu jàmm wax wax yoo xam ne dana jëriñ doomu aadama ci jiiru dundam bu pare nag dal di ñaanal mbooloo mi dal di gàmm gi tasaaroo noonu la Mawlaana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass doon gàmmoo ci diirub ñeen fukki ak juróom yi nga xam ne gàmm na ko fii ci Madina Baye li tàmbalee 1930 ba 1975. Serigne Papaan bu gàmm gi jeexee nag. waaw kay au lieu que. Mm-hmm. mu arrêté waaye mbëggeelam ci yenentu yàlla Muhammad comme dane woon fa man raama darki fi ishtiyaaqi nabiyina laqad raama amran mustahalan muharrama ku ma jéem a dab man alxaaji Ibrahim Niass ci bëgg yonentu yàlla Muhammad ku bëgg a mel ni man ci bëggeel gi ma bëgg yonentu bi yaa ngi bëgg mbir moo xam ne mu jomb mhm. yaa ngi bëgg mbir moo xam ne dañ ko araamal keneen ku dut man maanaam bëggeelam googu bu gàmm gi jotee ba mu gàmm ba noppi nga yaakaar ne mbir ma yem na fa bés bi bu del siwaate nag ahlan bi yow min summi muhammadan xayrasmi ramzan li maana al ismi min jaddihi li yanjali la بحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل mu daal di taxaw nag gàmmuwaat bu boobaa dajale àdduna bi yëpp ñu dajawaat ca këram ca coopérative ca Kaolack waaye Maulana Alhaaji Abdullah Ibrahim bi xalifaam di doomam di borom xam-xam bu mag boobu nga xam ne àdduna yëpp xam nañu maqaamaam ak xam-xamam ak fullaam yal na yàlla dolli leeram ca barzax moom ci xasanaatam yi ba mu ñëwee mu andiwaat ko ëtt bi ñuy def gàmmu gi ci bërëb bi bu bës bi del ñu gàmmuwaat léegi Madina ci dëgg-dëgg weeru gàmmu bi teroo ba keroog ñuy gàmmuwaat daanaka ñaar fukki fan yépp maanaa gàmmu la ci Medina saay soo ñëwee ci dëkk bi foo sànni mbatt mu takk surtout nag diggante gàmm gu mag gi ak gàmmuwaat gi buñ demee ba gàmmuwaat léegi kenn xamut mbooloom gàmm gu mag gi ak mbooloom gàmmuwaat gi gan moo ci ëpp ko loolu daal mooy jëfi Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass mi nga xam ne xalifa Cheikh Ahmada Tidiane la di xalifa yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi noonu la doon liggéeyee ci mawlidu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais li mu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, ñu jël benn xaside rek boo xam ni def na ko xazal euh, boo xam ne xazal la ko def ndax tëbul rek dal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga tànnal ma ci xaside yi nga xam ne Cheikh al Islam def na ko ndax li mu wax yonent bi kenn xamul mu toll mais ñu jël ci benn rek pour bégalee ko njaboot gi bégalee ko téléspectateurs yi mais ñu jël xaside boo xam ni def na ko xazal maanaam tudd ci jigéen moo xam daada la moo xam bu bu sayna la moo xam salma la avant muy dal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam Euh, oustaz Pape dama lay gërëm di la ndokkeel biig dañoo am benn jotaay fii ci Madina mhm. ci kër sunu baay bu ñuy wax baay ndongo ñang mhm. doon fa waxtaane xale yi di zikkër ñiy waxtaan ci yonent bi mhm. mu ne ma ren nag tànnaluma la tem foofu rek yàlla dogal maa maa ngi yor ci sama loxo diiwaan bi Maulana Cheikh Ibrahim tagg yonent bi Mm-hmm. naka laa ubbi rek dajeeg benn xasida ci iksiru saadat mm-hmm. ma firil leen ko démb waaye léegi bi nga la bi ma bi nga waxee léegi rek waaw damaa ubbi waat dajewaat ak moom mu mel ni xasida bi daal eh, am naag moom tawfiq ci gàmmu gi mu ngi nii daaniya min tazkaari salma wa tandami fa inna jamal al mutaraddami allahu akbar est-ce que maolana cheikh al islam alhaaj ibrahim Niass radiyallahu taala anhu wàllu shiar wàllu woy da ci am masiya da ci am may moom yàlla def koo tàggatal làmmeñu arab mhm. nu ko neex la ci soppax ndikoo moom wëyam du ci def te këlluf mhm. du nekk di xalaat naka lay bindeeg du defit te annuk moom daal nu waarit bi ñëwee rek noonu la koy defee dawaawinu sitt yi euh, diiwaan yu jafe firi la ndax Baay radiyallahu anhu ba ci alqadaaya al asriya lim ci daan wax ak ay position mu ngi ko doon wax ci biir buy tàgg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaa loo xam ne actualité la sax bu amee ci jamono mm-hmm. moom buy régler problème boobu day jël xalimbaam di tàgg yonentu yàlla muhammad ci biir tagg yooyu nag lay génne yonent yàlla muhammad actualité bi ban solution la ci yonent yàlla muhammad joxe actualité bi ban solution la ci lislaam joxe xasidaam yi mu tagg yonent bi moom noonu lay tagge yonent bi sallallahu alayhi wa ak itam tolluwaayam bu fekkoon ne sax am na lu mu war a tontu mbaa ku mu war a tontu sax ci xam-xam mhm. la ca ëpp mujj dootul bind ay téere di def ay radd mais ci xasida tagg yonentu yàlla muhammad moom Baye ci lay leeralaale lépp lu war a leeral mhm. waaye xasida bii daal bu am doole la buy bëggloo nit yenentu bi la waaye buy won nit ki Baye nan la yenentu bi mel ci moom ci mbëggeel mu ngay wax naan daaniya min tadkaari salma wa tandami xam nga arab dafa bokk ci seen uslubu waxin li wax tajridu shaxs maanaam mel ni dangay ngay bocc jëmmu jàkkaarloog jëmm ji di wax moom wala shaxsayni gis nga bu sayri amin tazakkuri jiraanin gis nga ka waxal mhm. gis nga muhayyab xalilay yauja xalilay wanzila mhm. wala tabgiya an xayfihi mutahawala mhm. moo tax moom mu ne daaniya ñaari nit la jàkkaar di wax ak ñoom ndax bu ko neexoon ne daani bu ko neexoon mu ne daani muy kenn waaye daaniya bàyyi leen ma yéen ñaar daaniya allahu daaniya dimbale leen ma waaye noppi leen min tazkaari salma ci di ma fàttali jongoma ju tudd salma wa tandami ak jongoma ju tudd tandam maanaa yéen sama ñaari nit ñiy janook man mhm. di wax ak man man alaaji Ibrahima Niass bu leen ma fàttali benn jongoma ci misaal bu fekkoon ne ci ñun la comme Salma ak Tandam ni ko arab yi di wooye rek comme daal ay kumbaak tàkkoo ki ki faatoo ki xadi maanaa yow e bu ma kenn waxtaanal waxi jenn jongoma ju nangam mbaa ju tudd nangam fa inna jamal al hashimi naka taarub kojug Hachim ka te mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu taraddami loolu moo di sama bërëbu bëngeem ci taarub yonentu yàlla Muhammad bi moo ma bëngéem loo man alaaji Ibrahima Niass waaye nekkul taaru jenn jongoma te ñaari salma ak tandam ñaari jongoma yooyu man ngaa wax sax ne mooy àdduna ak alaaxira man ngaa wax ne moom mooy lépp loo xam ne rek feeñ na ci àdduna bi mu di ay poñeti àdduna loola la bëgg a wax ne bu ko kenn fàttali loolu moom daal nañ ko fàttali taarub yonentu yàlla muhammad ndax taarub yonentu yàlla muhammad bi sallallahu alayhi moo ko mandiloo moom bàyyi hmm. isa atraba al aqwaama malhan wa mat'amun taribtu bi zikri l haashimiyi l mukarrami wala wa matmaun mu ne moom bàyyi isa atraba al aqwaama ndéem sigre na ay gaay malhan bërëbi fowukaay wa matmaun ak ay bërëb yoo xam ne dañu fay teg yaakaar walla wa mataamun ay maanaa resto ay café ay resto ay hôtel yu xumb yu neex bu fekkente ni loolu mooy sigreloo ay gaay man baay day taribtu maa ngi sigre bi dikril hachimi yi ci tudd ki nga xam ne mooy ko jug hachim te mooy yonentu yàlla muhammad ngir ne hachim moo jur maami mooy maami moo jur maamam abdul muttalib uh-huh. moo tax ñu koy askane ci hachim al mukarrami kadi kañu teral ka jalisi ida axluwu jamaalu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam habibi ilahi alaalamin almuazzami mawlana cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu mu ne jalis yi sama toogaale mhm. man baay bu ma wéetee isa axlu ndéem wéet naa ki may toogaaleel mu may wéttali jamaalu muhammadin mooy taarub yenentu yàlla muhammad saay su ma wéetee rek taarub yenentu yàlla muhammad moom mooy sama wéttal mhm. man alhaaji ibrahima Niass ñu ne ko kan mooy yenentu yàlla muhammad mu ne habibi ilahi alamina soppeb yàllay mbindeefi almuazzami di kadi kañu màggal moom yonentu yàlla muhammad mooy soppeb yàlla moo di ka nga xam ne itam ku ñu màggal la ngir yàlla moo ko bind ba pare teral ko màggal ko malaaka yi màggal ko yonentu yi màggal ko mboolem saalihiina yi itam màggal ko moom itam mu nekk ku màgg ci boppam sallallahu alayhi wa sallam fa abdun tajalla sayidal kawni yaa lahu tahayyara fiihi xaatirul jimi xoola rek arab yu rafet yooyu ak tëggin wu sell woowu bàyyi mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdun mooy jaam de waaye te jàllaa feeñ na moom jaam ba sayidal kaw di sangum nekk téef yi bi maanaa mu di ñaari yoo xam ne ay sofaan lañ ay ñaari contraire lañ waaye yonent yàlla muhammad boole ñaar yooyu yonent bi nekk na abdu nekk sayidu hmm. moo di abdullah waaye mooy sayidu xalqillah léegi nag loolu bàyyi mu ne koo xam ne danga nekk ab jaam hmm. wëlbati ku nekk ab sang yaalahu yéem naa jaam boobee mel noonu kooku jar him nekk jaam ba noppi nekk sang nekk jaam ba pare nekk sang muy Seydina Muhammad boole ñaar yëpp ci mu mu daje ci yow kenn mu ne kamel noona yaalahu eskey kooka yéem naa ko man alhaaji Ibrahima Niass mhm. taxayyara gëlëm na fiihi ci ca kamel noona xaatirul mutajamjimi maanaa xaatiri aji xalaat joo xam ne xaatiram ba mu ngay wëndeelu mhm. ci péyub yàlla bi di xam di xàmmee di ràññee xadaraat yeeg xaqaayiq yeeg mazahir yeeg la mel ni loola asmaaw yeeg sifaat yi koo xam ne xaataram mu nga ràññee loola waaye dana gëlëm yonent bi ana fan la koy adressé ndax danaan ab jaam la wala ndax danaan ab sang la am na benn xadis yonentu sallallahu alayhi di wax ne ana sayyidu waladi aadam wala faxra man yonentu yàlla muhammad maay sangu doomi aadama yëpp mu teg ci ne wala faxra te déet nag muy puukare baatu wala faxra boobu nag sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi dañu ne mhm. maanaa li ma wax loolu mhm. jubluwuma ci pukkare mhm. dama ko wax ngir sant yàlla waaye pukkare wu ma bàyyi mu ne déedéet dégguñu hadis bi yonent bi daf ne maay sangu doom aadama yi walaa faxra waaye loolu du sama tiitar loolu du sama tiitar. nekk gi ma nekk. di sangu doomu aadama yi nekkul ne mooy sama tiitar. waaye waxul ni puukare waaye waxul ne damay puukare wu. ñu ne ko kon nag mu ne yenentu dafa bëgg a wax ne sama tiitar mooy ma nekk Abdullah. waaye oh. sama tiitar nekkul ma nekk Seyidu wala di Adam. sallallahu alayhi wa ndax yonentu bi buy nekk Seyidu. nekk ab sang dafay wàcc ci jaam ñi door a nekk seen sang waaye bu éegee ci yàlla dafay nekk jaamub yàlla. te jaam moo ko gënal lépp mu yéeg ca yàlla nekk jaamub yàlla moo ko gënal mu wàcc ci jaam ñi nekk sangi jaami yàlla yi. sallallahu moo tax mu ne ana sayyidu waladi aadama. wala faxra wala faxra.